wala ñoom mooy tëggoo. d' accord tey nag euh, li nga xam ne moo di émission xaalis yoon euh, waa Caaroy info tey daal di lay seet si fii ci diwaanu cité Lobat Fall euh, ci noonu rek ñu nar waxtaan waxtaanee li nga xam ne moom ngay jiite mu di wasa général loolu mais balaa loolu pour ñi nga xam ne xamuñu la tey jii su la doon laaj kan mooy Abdoulaye Djigo am na lan nga may tontu. waaw Abdoulaye Djigo mooy benn jeune bi nga xamante ne vraiment mun naa ne Kaolack la fa la ba am BFEM après mu ñëw fi def formation dëkk Dakar nekk Dakar di doomu Pikine kon macha allah yow Kaolack nga nga jógee ñëw Dakar euh, ci noonu euh, tey nga nekk PDG WhatsApp général Lour waaye balaa may dugg si loolu ba nga ñëwee dakaar lan nga fi njëkk a liggéey waaw bu ma ñëwee Dakar dama nekkoon Kaolack def concours bi benn concours bu ñu ñaan concours direct la woon que formation direct la woon en 2004 c' était SENCUP la boobu maa ngi réussir woon concours bi direct ba ko réussir ma ñëw def formation professionnelle ba ma koy defee ma liggéey ma def formation bi un an deux ans ñu ma test ci entreprise bu ñu ñaan Soboa ma réussir test bi commencé nañ ci liggéey di jàng ba macha allah actuellement bu mu toll maa ngi suma BTS ba def naa suma cycle ba pare kii en euh, électromécanique en même temps tamit jaar naa entreprise yu bëree bëri mais xam naa suñ gënee dem ci waxtaan bi naa leen wax yan entreprise laa jaar ak entreprise yooyu lu nekk la laa ko géré woon mm-hmm. ba finalement wasa géma lu toll D'accord, accord mu mel ni sax ci circuit boobu la ñuy topp euh, tey jii ba nga demee ba am sa BTS ci yan entreprise nga parce que tey jii je rappelle que amoo sa BTS rek daal di créer li nga xam ne moo Général Lo mais Amna, na si ay entreprise yoo xamante ni jot nga fa liggéey am na ay entreprise yoo xamante ni jot nga fa am ay expérience euh, tey balaa lii di sosu entreprise yooyu yan ak yan la. waaw ba may nekk Sobois Sobois la njëkk a commencé ci entreprise. que stage sax laa fa demoon stage bi juste 30 jours la woon te école moom mu yóbbu pour test. Mm-hmm. parce que d'habitude seen QP e nu mu doon demee école bu baax la woon. Mm-hmm. ba par concours moo doon dugal ko parce que temps yooyu dafa cheroon pour nga fay. Mm-hmm. cours du jour pour nga fay da nga fay 200000 ay 2004 comme donc cheroon na. mais concours laa duggee woon foofu. ba mu duggee ci concours bi foofu fayu woon. amoon naa ko logement mais ma woon maa ngi loger woon fële Pascasier. di jóge foofu di jàngi seen QPM. ba mu fa defee un an deuxième année bi dañ lay yóbbu test ci entreprise bi pour xool première année bi li nga jàng ndax mun nga appliquer wala munoo appliquer yàlla dimbale ma ba ma defee test bi Soboa ñu jël mu foofu Soboa tombé benn usine bu bees bu unité bu bees bu ñu monté foofu. loolu en quelle année. en 2005. 2004 mhm. laa ñëw Dakar. Mhm. ba ma ñëwee 2004 Dakar réussir boobu bi def un an 2005 après yóbbu ma test. au niveau Soboa. parce que dañoo sélectionné woon rek ku nekk ak entreprise bi ñu lay yóbbu quoi. d'accord man dañ ma yóbbee Soboa man nekk ko test bi ci une semaine deux semaines test bi jàll en même temps aussi directeur ressources humaines convoqué ma na vraiment sama li ma wone foofu ndax dana ko arrangé ndax ndax man dana ma arrangé may jàng di liggéey boobu ma xool xam ne ne vraiment loolu dinaa ko mën ma engagé ba ma am foofu yi parce que six mois laa ko def ñu ma contrat mm-hmm. moo def ma respon def ma chef de carrière ma gère benn unité bu ñu naan PET yaakaar naa ñun ñoo ko njëkk a installé fii Sénégal mooy bouteille plastique yi nga xamante ni moom actuellement moom la ñu wax VIP yi bokk naa ci ñi koy njëkk a parce que usine boobu moo taxoon ñu jël ma te formation boobu lañ ma jëlee woon Sombowal ma def fa sept ans ma liggéey fa sept ans de 2005 à 2012 mhm. après ma démissionné que mu démissionné ma dem Gambie. mais lu waral sa démission. waaw lu waral sama démission mooy que ne vraiment foofu après amoon naa benn expérience bi. Mhm. te après am na formation yi nga xam ne waroon naa ko mun di continuer mais mënu ma ko woon continuer. samay responsable aussi selon ma nu mu buggoon di jàngi leen di kii dañ ma bëggoon di tourner car car mooy ngay fanaan di liggéey après ma xam ne day arrêté sama cursus du ma arrangé. loolu moo taxoon ba démissionné. Mhm. ba ma dem naa fi Gambie. Mhm. ba ma demee Gambie 6 mois laa fa def. moom it ci benn entreprise lañ ma jëloon foofu li mhm. nga xamante ni ñaan di wutaw lañ ko tuddee moom boisson lay def mhm. ak ndox mhm. boo ko demee 6 mois ma gisee ne vraiment affaire bi développé wul te du avancé puisque développé wul te du avancé fan foofu ci diwaanu Gambie waaw Gambie waaw après la démissionné foofu tamit ma démissionné ñoo Sénégal. foofu ñaata temps nga mois laa fa def. d' accord Gambie. Mhm. foofu responsable production laa fa nekkoon ak responsable maintenance. d' accord boobu ñaar yëpp laa boole woon à la fois. Mhm. mais ba may nekk Soboa benn rek laa commencé woon mooy nekk production mais en même temps dama doon defaale maintenance. Mhm. parce que comme que sama niveau. technique la woon. damay boole ñaar yëpp boole vraiment Soboa aussi yàlla dimbale woon ma ak responsable yëpp bëggoon ma. di ma former parce que non seulement amu woon niveau.

bon ba ma demee Gambie après ba ma toogee Gambie ma xam ne ne vraiment moom maa ngi perte perte repère te bëgg naa continuer ba am suma BTS parce que dama doon dafay cours en ligne finalement affaire yi commencé métier ak pression liggéey bi foofu ma ñib si Sénégal ba ma ñibsee Sénégal mhm. après ba ma ñibsee ma déposé compagnie sucrière mhm. moo ngi nekk Risatol mhm. foofu itam ñu jël ma responsable production ma nekk fa ñu joxoon ma logement vraiment jox ma bon ñu mettre ma dans les bonnes conditions jox ma oto mhm. mais après ma nekk foofu moom it sii mois gis ne vraiment fii mënuma di jaabante Dakar pour def yenn parce que dafa sori mhm. bon ma déposé benn appel d'offre bu ma gisoon ci journal L'Obs mhm. après ba ma déposé appel d'offre bi ñu sélectionné ma ma ñëw def entretien bi ñu jël ma mooy Métal Afrique foofu ba ma ñëwee ñu jël ñu ma fay salaire bu baax macha allah foofu tamit gën nañ ma formé parce que ba ma ñëwee non seulement salaire kii la poste bi poste cadre la des expériences qui xaw parce que il faut ma amoon BTS pour qui mais puisque patron lui aussi dafa nekk ku baax mu formé ma di defal ay séminaire pour nous mun a am benn niveau bi foofu tamit def naa fa cinq ans mhm. métal Afrique mhm. foofu ñaari flagé woon production bi ak maintenance bi ak mhm. section yu fa nekkoon yëpp section yi mooy amoon na atelier mécanique amoon atelier tour amoon atelier soudeur amoon plomberie amoon maçon amoon soudeur section li nga yaakaar ci usine ci lépp luy fonctionner amoon na fa mais ñoom dañu ma formé woon ci loolu ba nga xam ne section yooyu ak prestation de service yi maa ko ci foofu nag laa xalaatee ne donc donc kon man war naa mun a créer sama entreprise bopp mhm. ci expérience bi ma xam. ci laa xalaat nag créer Wassagen La Lour mhm. muy entreprise bi nga xamante ne ba mu koy boobu aw ma benn fond mais mhm. gëm naa sama bopp ne ak expérience bi ma am. war naa mun a liggéeyal sama bopp ci selon prestation de service yi may def fii Métal Afrique. d'accord euh, ci noonu sax euh, la ñuy demee euh, rek ci li nga xam ni moo di service commercial daal di dellu siwaat rek ci li nga xam ni moo di plateau bi ñu ciy àndal rek ak li nga xam ni moo di suñu sponsor leader mu di Moisson borom 3M. te nekk foofu ci diwaanu Thiaroye waaye aussi muy bàyyi waaram baax a ci li nga xam ne ñu jëm ci wàllu menuiserie métallique ah, ba tax na rek mbokk internet yi képp koo xamante ni da nga bëgg porte en fer wala sax sax nga bëgg li nga xam ne moo di ay chambre à coucher wala salon yu mucc ayit mun nga dem seeti Mansour borom troisième moom mi ngi foofu ci diwaanu Thiaroye boo wàccee rek ci fi nga xam ne moo di pont bi jaar ci gannaaw kër sër yi waaye tamit ko woo ci 77 975 75 95 77 975 75

dalen ak jam sen entreprise 3e menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati da ngaa bëgg taille rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ay wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie

bon wasa général eh, sama turu maam la wasa bi mooy sama maam moo tuddoon wasa Camara mhm. général ma jëloon lépp yi nga xam ne général la comme ni ma ko tuddee sànq mhm. mooy que ne entreprise la mu bëggoon muy def yi nga xam ne Sénégal dañ koy war a mën a mhm. en moo taxoon mu tuddee ko wasa général comme général lourd comme poids lourd loolu tax mu tuddee ko wasa général d' léegi tey jii monsieur Djigo est ce que tey mën nga dellu si waat ci li nga xam ne moo di entreprise bi idée wu créer entreprise bi fan la jógee ak tey jii ba nga ba nga créer entreprise bi fan nga jaar parce que li olof naan euh, dara xëyu rek sotti te donte sax xëy na ba nga créer entreprise bi am na ay jafe-jafe yoo xamante ni euh, jaar nga si ba waaye balaa loolu tey idée entreprise bi fan la jógee waaw a entreprise fu mu jógee ba ma nekkee météo affaire di liggéey di liggéey ak prestation de service yi encore mu nekk benn nit di gérer section yooyu noonu yëpp ak section yi ñu bëree man mu mun ko gérer lépp muy am réussite parce que def naa ko 7 ans yi nga xam ne maa ko gérer muy production bi di maintenance bi di entretien atelier yi man naa ba chef d' atelier sax dañ ma jëlee woon foofu mm-hmm. mais le fait que ñu formé ba ma am niveau boobu noonu moo taxoon ba ma créé entreprise bi day métti parce que entreprise ku mais vraiment ba ma ci nekkee un an deux ans après yàlla dimbali na ba ma gis bunt bi te après su ma ci su gënee dugg ci waxtaan bi ma wax leen man fu ma démarré ba fi ma toll nii bon mun naa ne euh, mu nekk loo xamante ni xëy na jeunes yu bëri tey war nañ cee daal di rek roy ngir rek mu nekk loo xamante ni référence la parce que tey jii li nga xam ne moo di entrepreneuriat euh, mun nañ jàpp ni rek euh, moom mooy domaine boo xamante ni moo am fii ci diwaanu Sénégal wala sax mun nañ ci loolu nga war a mën a jaaree rek pour rek mën a daal di tekki ndax sax bu ñu jëlee li nga xam ne moo di ndaw ñi ñu ci bëri amuñu xëy li nga xam ne moo di sampal sa bopp sa yëpp nekk entrepreneur euh, daal di rek euh, defaral sa bopp dafa mel ni sax euh, dina nekk loo xamante ni dina gën a baax a baax pour ndaw yi rek mun na am xëy ci noonu rek Ablaye Djigo damay daal di dugg dugg ak rek ci li nga xam ni mooy sa entreprise en quelle année nga ko sos. waaw entreprise ba naa la yàgg na yàggul man créé 2015. 2015 mhm. ba mu ko créé ci laa ut documents yi ba muy dem travail maa ngi am salaire. di fayeeku te macha allah mun naa ne ba may créer entreprise mun naa ne sama salaire rek doy na woon parce que ñoo ma doon fay 650 mille liquide mais après ma xalaat ne man dama nekk jeune sénégalais dama war a joxe un bon exemple surtout fii ma dëkk ma ne donc pour ma joxe un bon exemple il faut ma créer entreprise di ci jël ay sénégalais parce que dama gis bailleurs yi ak ñu fi ñëwoon ñëpp di investir ci entreprise yi ay soit ay naar lañ soit ay tubaab lañ ay étranger rek ñoo doon mais après man ba ma xoolee non pourquoi pas ñun sénégalais waruñ mun di créer entreprise état bi war ñu mun a jàppale pour que au moins am benn financement bi wala ak suñu propre moyen ak banque yi ñu war a mun a dem pour liggéey suñu entreprise mun a jëm kanam surtout que ne moom ba mu ko créé li ma ci gënoon opté mooy man ma gis Sénégal liggéey fi métti na te jeunesse bi yu bëri da ngay gis dañuy génn dem lu uti feneen seen dëkk duñ fi bëgg a toog mais soo créé entreprise ñu ci bëri danañ mën a toog parce que salaire bi ñu bëri dañuy ñëw di am fii di jël di yóbbu seen dëkk pourquoi pas man ñu dëkk fii créé fi entreprise am fii investir ci dëkk bi pour que ñu nekk ci dëkk bi ñoom it mën a tekki seen ci dëkk bi def ci dëkk bi loolu moom moo mu poussé woon ci créé entreprise mu mel ni rek xëy na loolu dafay nekk message fort ci li nga xam ni moo di jeunesse bi euh, dafa mel ni rek mun nga toog fii ci duwaanu Sénégal daal ci tekkee euh, du rek boo jëlul roplaan gi daal di dem bitim réew rek ngay tekkee euh, tey jii. créer nga entreprise ku ne xam na ni yor entreprise nekk na loo xamante ni yombul benn yoon xanaa rek damay dikkaat ak yow ba nga créer entreprise bi lan moo nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni tey jii jànkonteel nga ko loo xamante ni tey jii mun na nekk loo xamante ni ndaw ñi mun nañ ci tirer leçon parce que je peux rappeler que ni tey entreprise bi créer woo ko rek euh, daal ci am li nga xam ni moo di réussite. non non non ba mu ko créer entreprise bi métti woon na métti trop parce que ba amoon naa benn capital bu am doole ci lu ma yaakaaroon parce que amoon naa capital au moins 18 millions yi nga xamante ni liquide la moo téye ko di ko xool mu leer na ma moom laa lépp du kenn maa ko liggéey créé ko muy sama propre fonds lu ma ci yàlla dimbale mooy amoon naa kër fu ma dëkk ma moomal sama bopp ma ne kon donc ak 18 millions yi war naa cee mën a dund lu yàgg te du ma sonn ak entreprise moo nekk mais comme la dama créé sama entreprise bopp démissionné pour mën a liggéey sama bopp donc capital bi dana ma bon ak 18 millions mais ak marque essence 18 millions ba ma ko jëlee investir ko ci lu ma ko war a investir parce que ay camion laa jëndoon benn camion laa jëndoon ak benn fourchette xaw ma ndax xam nga fourchette mais mooy genre transparent yooyu noonu di yëkkati machine parce que amoon naa ci expérience te gisoon naa usines yi lu ñu koy soxla day bëri ak yeneen entreprise bi nekk fii benn camion mais camion boobu ma ciy investir jënd ci fourchette bi mun naa ne un an bi moo ko jënd ci un an boobu dama daanu camion bi dafa paan fourchette bi paan capital bi say oto yi jëndoon naa ci benn oto ak benn fourchette ñaar yëpp a paan entreprise yi nga xamante ni amal nañ ma xaalis ba tey nii munu munuñ ma fay sama xaalis parce que dama doon liggéey ak sama xaalis maay jënd gasoil maay fay chauffeur bi man maay dépanner après su ma facture ma fay ba tey nii am na samay facture yi nga xam ne vraiment moom ci entreprise yi fayuñ ma ko te ñu bëri loolu mooy tax ñu découragé ba duñ bëgg sa investir di créer seen entreprise bopp parce que tey su fekkoon keneen la ku jógee feneen ñëw day am benn bailleur bi nga xamante ni dana am partenaire li xam ne day ñëw jox ko xaalis mu liggéey ci après su affaire bi doxul mu bàyyi loolu wala mu dem ci banque bi la lebal ko benn oto su mënul fay mu jël delloo ko ci banque mais man sama propre moyen laa demee woon moo tax après ba mu méttee moom muñ gëm yàlla ne man kon man dama ci war a mun génn parce que tout début est difficile. mais ba génn li ma def ba génn ci mooy que ne après dama bàyyi loolu xam ne ne fii ma jëm du bunt bi parce que comme te liggéey naa ci am naa ci bénéfice d' accord ngi calculer yor ay papiers rek muy ay facture jotuma benn liquide. ma ne ko puisque jotuma benn liquide te yor naa ay facture maintenant naa bàyyi ma xool beneen liggéey bi nga xamante ni xam naa ko parce que comme li ma lay wax comme te am naa expérience expérience mooy tax nga réussir ci àdduna soo amul expérience mënoo réussir ci dara donc dañ def tout ñu ñi ñëpp ku mënti doon dem su fekkee da nga am programme wala benn projet bi nga xam ne jàpp nga ne 2 millions moo koy def ne ne yow 50 ngay démarrer pour egg ci 2 parce soo xasee ba gëm loolu nekk ci loolu yàlla dana la dimbale fu nga bëgg a egg nga egg fa parce que loo gis fii Sénégal gëm-gëm la soo ko gëmee yàlla dimbale la. d'accord euh, d'accord euh, ci noonu tey bu daal di weesoo rek li nga xam ne moo di entreprise bi nga xam ne yow yaa nekk PDG bi est-ce que tey Abdoulaye Djigo dafa am ci yeneen activité yoo xamante ne da ciy yëngatu. bon activité yu may yëngatu actuellement man mun naa ne politique de développement laay def. bëgg vraiment gox bi ma dëkk muy Pikine noonu ñëpp xam na ne Abdoulaye Djigo benn jeune la bu nekk fii di joxe un bon exemple la preuve mooy soo duggee sama kon laajtee képp ñëpp xam nañu Abdoulaye Djigo xam nañ kan mooy Abdoulaye Djigo parce que ci social mooy dox la képp ku ne social nag pour man social développement la parce que nit moom tout le temps dañ ñaan soo koy dimbalee mooy won ko nu ñuy nu ñuy nappee comme olof yi ni ñu koy won ko nu muy nappee pour mu mën a kii ki ngay may jën sax won ko nu muy nappee moo gën mais non actuellement lu tax man may def social pour que ñeneen ñi nga xam ne ay bonne volonté lañ ñu nekk ci dëkk bi nañ war a a jàppale ñi nga xam ne ñoom lañu dëkkal buñ xaar ni ñuy ñëw di leen laaj buñ xaar nit ki ñëw di leen tàngal bopp pour ñu jox ko nañ jéem suñ jéemee ñeneen ñi dañuy gis si loolu pour mën a jàppale ñu nekkal loolu tax man mooy dem ci loolu peut être nag avec le temps dana dem ba Ablaye Diouf mun nañu mucc yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ko ci dégg allah. mais tey jii la plupart du temps ñi lay wax ni dañuy yëngu ci politique de développement amaana dañ leen di gis ab diir bu gàtt ñu daal di dugg ci langue politique du loolu ngay préparé. non pas mu préparé ko loolu après jeunesse bi suñ ko soxlaa ma jël ko man lu may def sama soxla wala sama population soxla ko. suñ ko soxlaa ma jël ko def ko de. waaw la soxlawee bindal ko ci langue politique waaw waaw ma ñëw taxaw wane sama bopp dëggal ko wane ne man la Ablaye Djibo yàgg naa def pour ñoom. Mm-hmm. moo tax après ñoom dama bëgg affaire bi jóge si ñoom. pas man mu jóge ci man parce que maa ko bëgg te woon dama bëgg moom mu jóge si ñoom parce que ñoom ñoo bëgg man ma doon ko. ñoom ñoo bëgg yow nga doon ko. xanaa rek ma bàyyi la nga tàggatoo wax ma lan mooy dernier mot bi. waaw en fait. kontaan vraiment ci émission bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm surtout waa Pikine Nord parce que fii laa dëkk te fii laa tiitaroo donc nee naa Pikine bi la Pikine c'est le sang donc tax fu mu toll nii ma naan Pikine la soo déggee ma naan laa dëkk Pikine laa juddoo fii laa yoroo parce que nit ki foo am kër yaakaar naa fa nga dëkk fa nga yoroo fa nga fa nga fa nga moom quoi fa nga moom parce que tey soo amee ba am fa këyit bi ñëpp am ku taxaw ne lii lii man maa ko moom yow nga taxaw kon donc su neexee toog ne laa dëkk kon donc ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi ñu may liggéey loolu am ah parce que vraiment sonaluñu ma ci dara waaw vraiment merci beaucoup xam naa ñu xaar ba beneen émission at

koñ li nga xam ne moo di entreprise daal di rek mën a tekki du rek ni boo jëlee li nga xam ne moo di roplaan bi dem bitim réew foofu ngay tekkee fii ci duwaanu Sénégal mun nga fi liggéeyee daal fi rek tekki ci loolu rek mbokk internet yi nii lañ koy defee saa su ne képp koo xamante ni rek da ngay bay sa waar ci lu jëm ci wàllum entrepreneuriat. mën nga daal di euh, contacter ñi nga xam ne ñoo di équipe bu Thiaroye Info TV euh, su ko defee rek ñu daal di lay euh, seet si incha allahu rabbi mu ngeen ñu woo ci 77 036 06 74 wala sax si 33 834 30 36 su ko defee rek équipe bu Thiaroye Info daal di déplacé wu. Euh, di daal di ja jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo nekkoon gan ñu daal di ko rek dalaloon ci suñu émission xaalis sa yoon waaye aussi jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne rek ñoo jàpp ci émission bi ba mu daal di yem rek euh, jaajëfal bu baax a baax euh, ki nga xam ne nag mu fare woon ci wàllu xarala gi ñu koy wax suñu ramasu kër gi Siré Niane lañ koy wax mbokk internet bi lañ koy defee saa su nekk di leen wax rek ngeen daal di abonné li nga xam ne moo di cloche bi ngir rek ngeen daal di di jot suñu notification fu mu toll Caaroy info ni la koy defee saa su ne jaajëfal bu baax a baax suñu sponsor leader mu di Mansour borom 3/3ème mooy ngay sax ki nga xam ne mooy émission bi di leen jox di daje ci beneen invité ak ci beneen entreprise nagam sob na yàlla jaa ngeen